honorables invités, chers récipiendaires. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu. Chaque jour, je rends grâce à Dieu et me féliciter de l'opportunité que vous m'offrez de revenir dans cette belle ville de Thiès qui m'a tant aimé, qui m'a adopté et pour laquelle mon cœur vibrera toujours. Euh, monsieur le secrétaire général Sagui, mon frère, vous avez parlé de chercher une maison ici à Thiès. J'ai ma demande sur la table du maire depuis deux ans. C'est parce que je voulais, mais je n'ai pas encore, mais laissons ça entre les mains de su ko tuddee rek am incha allah et y' a Khady qui me disait mon assistante Khady il il faut chercher ici une maison avoir une très grande salle où vous allez mettre les diplômes j'ai eu tellement de diplômes je ne sais pas pourquoi mais j'en j'ai eu des tableaux j'ai eu des cadeaux donc je pourrais exposer et elle a parlé de salle d'exposition. Donc ça aussi, c'est Thiès qui nous a offert cela. Je voudrais ensuite vous remercier très sincèrement pour votre forte mobilisation, certes à l'honneur de nos chers retraités qui partent, mais aussi, et je veux le rappeler, vous dire merci lorsque le 27 décembre, j'ai été désignée marraine de la journée mondiale de la mobilisation extraordinaire qu'il y a eu, j'aimerais vous remercier très sincèrement. Vous culture qu'est le Théâtre national Daniel Sorano. Vous l'avez illuminé de votre présence massive. Et je me suis euh, dit, en parlant avec les agents de la direction des ressources humaines, est-ce que Sanchez vous auriez eu une salle pleine Ils ont non. Merci à vous. dangeen maa sagal yal na leen yàlla sagal je voudrais enfin vous redire toute ma gratitude pour votre sollicitude constante dont la preuve matérielle est l'honneur qui m'est fait aujourd'hui à travers ce sargal. Euh, ceux qui se sont succédés ici ont eu à rappeler un peu les sargales qui ont été faits à mon honneur. Et je continue de me poser la question de savoir pourquoi. Et je me suis dit que si je n'arrive pas à savoir le pourquoi, je devrais en tout cas continuer à faire comme je faisais pour continuer à faire mieux que ce que je faisais. C'est ça que j'ai trouvé pour le moment pour dire que je n'arrive pas encore à comprendre toute cette affection, tous ces bons mots qui se sont dits depuis ce matin à l'endroit de ma modeste personne. La rencontre de ce matin, certes, c'est la perpétuation d'une belle tradition désormais implanté par le collectif des chefs d'établissement de Thiès et qui se veut un moment solennel pour fêter et rendre un vibrant hommage à des enseignants émérites qui, par leur abnégation, leur détermination, leur foi en un métier si noble, un sacerdoce, je dirais, donc ces gens qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Il me plaît de dire que la retraite pour un enseignant, qui plus est pour un chef d'établissement, n'est qu'un repli stratégique pour mieux accompagner son système éducatif. Et c'est ce que nous voyons tous les jours. Donc, vous honorez messieurs les chefs d'établissement, par le fait même de vos homologues, n'est que justice parce qu'ils savent ce que vous avez vécu. Car quel est le prix réel à attribuer à quelqu'un qui n'a d'objet ou plutôt qui n'a de préoccupation que de façonner des intelligences de former des jeunes garçons et des jeunes filles pour en faire demain des hommes et des femmes responsables. Quelle est la valeur intrinsèque de quelqu'un qui n'a de souci que d'encadrer des collègues pour les guider sur le chemin de l'excellence et les promouvoir la ce que vous faites en tant que collectif est une mission qui évolue au ministère de l'Éducation nationale. J'ai participé à des formations que vous avez organisées pour vos pairs et vous l'avez compris que c'était un enjeu de taille pour notre système. Euh, vous nous avez rappelé notre devoir Et c'est ce lieu de vous remercier très sincèrement d'avoir eu l'idée ingénieuse, d'avoir été les initiateurs de cette grande et énorme manifestation qui consacre depuis quelque temps, depuis quelques années, des hommes et des femmes qui ont tout sacrifié pour le bien-être de la jeunesse, Auguste Fleuron de la Nation. Je vais dû commencer par là et dire, Monsieur Ibrahim Sam, ainsi que l'ensemble des membres du collectif des chefs d'établissement, que vous êtes, vous et Monsieur le secrétaire général Sagui Seck, vous êtes les dignes continuateurs de vos illustres devanciers à qui nous voulons rendre hommage. Et je voudrais Et je voudrais vous féliciter, ce samedi, pour avoir euh, pu euh, être accepté par vos pairs pour que vous conduisiez les destinées de ce collectif. Vous félicitez, félicitez mon frère Sagué Sec et priez pour que les missions qui vous ont été confiées, que vous les... Euh, ci diggante proviseurs ak ay principaux ñoom ñoo war a dem retraite léegi nag am association chef d'établissement yi kuréel boo xam ni ñooy organiser suñu biir di def yëpp suñu biir ay cotisation la te su feet jotee ñu daal di seet ni war a dem ci kan seen i xarit ak seen i àndandoo ak devant les autorités tey bu tey bi comme ni ma la waxee fukk ak juróom ñooy dem bis bi nag ñu jagale ko inspectrice Khadijatou jàll mu fi jóge tey mooy marraine bi donc yaa bi nga xam ne moo ko wutu mooy présider séance muy bis bu solennel bis bu mag ci enseignant parce que tey ji retraite waxul rek retraite nga bisu jéggi siraat la déedéet dund gi commencé waat la gund gi dooraat la parce que ils bien outillés yàlla dafa tàggat jàngalekat ba nga xam ni mën na adapté wu ci situation bu nekk loolu nag moo moo moo moo moom la ñu xam ni moo leen daal tey sama wet maa ngi nii président Ablaye Mangane sortant moom maa moon kuréelu président des chefs d' établissement man mi Ibrahima Samb yoo xam man maa ko ci wuutu mais nee naa ñun suñu credo mooy puso bu du réer parce que ñoom ci ay loxo lañ ko jëlee woon yëpp processus la ci ay loxo lañ ko jëloon ñoom ñu dawal ba tey ji di ko tegaat suñuy loxo bëgguñu ñoom ëllëg muy moom ab Ablaye Mangane wala ka ko ma wuutoon ñooñu ñen ma wuutoon te ñu yëpp ñu ngi ci saal bi parce que suñu communion ñu kat ñëw di ni ah kii daal jox nañ ko liñ ko jox mérité wu ko wala daf ko delloo gannaaw. macha allah mën naa jàpp ni xëy na moo gën a rafet ci lycée public yu Sénégal. am na particularité am na particularité lycée bu rafet la bu ànd ak taar la bu ànd ak euh, jumtukaay la maa nag ñi ñi xamewuñu ko noonu. parce que dafa nekk ci zone bu difficile. la partie est dafa xaw a làqu. wante soo ñëwee ba ci lycée bi dangay ngay foog ni yaa ngi ci beneen bërëb. waaw loolu euh, mooy li fi nekk. Euh, gàncax baa ngi fi garab yaa ngi fi ñu ngi koy toppatoo problème yi nag mooy. école à grand effectif yi li leen di euh, li leen di gàllankoor yenn saay mooy mbalitu plastique bi mooy sachet do gobelet kafe xale yi dañuy utiliser rek pare fu mu tourné sànni naam ñi ngi leen di gàttamdu di jënd nan poubelle def ci couloir yëpp mais xale yi amaguñu li may naan euh, le réflexe poubelle mooy ñëw rek dama ubbi poubelle bi sànni def ci te te kenn du la ko wax loolu nag njàngat la lu naan remaniement des comportement li tubaab bi wax ci foofu la ñuy liggéey ak ñoom am moo tax am nañu comité d'action de citoyenneté bu benn professeur Khassimou Naam di diite chaque altine dañ def levée des couleurs te suñ jógee ci levée des couleurs bi toujours duñuy eh, dañuy dem ñoom ñu def benn fukki ci école bi benn gox boo xam ne war nañ ko toppatoo sa jardin ba wala fop waaw jafe-jafe bi aussi mooy lycée bi nee naa mi ngi ci deux hectares trois su ma ko dee comparé ak Malick qui est sur douze deux extra trois yi terrain football bi ci la bokk kon xam ne c'est pas possible soo mënee def ay salle de classe bi terrain football rek wan na mën a jël benn hectare ngeen war donc xam nga problème am na. ba tey nga terrain football bi neex neex lu sax woone léegi ñun dañuy ñaan euh, suñu nguur euh, mu jàppale nu ñu yokk école bi redimensionné ko ba mu mën a nekk loo xam ni. parce que ëllëg a tax tey gouverner c'est prévenir ñun du ñu xalaat bi ñu ñëwee deux ans def nañu benn programme li si Amary Ndack Seck émergent bi ñuy xalaat ni il faut ñu yokk euh, suuf si ko lal am nañu terrain yi nekk fii yoo xam ne ay camions suuf ak béton yi li ñu fay jaay te xam na ni loolu warul nekk ci taatu école. wa àndul ak sax santé ak nit ñi si nga xobu garab yi mhm. su ngelaw ñoom suñuy jëree suuf si di ko jaay mhm. su ngelaw si day naaw nekk suñu kaw xool suñu xonqe gis nga nu xonqe donc loolu yëpp dafa nekk ci loo xam ne ci problème bi la beneen bi mooy lycée bi à l'origine lycée d'excellence la woon duñ ko conserver muy lycée scientifique avec douze laboratoires mais tey ji ñaari laboratoire ñoo fi des parce que fukki salle yoo xam ni duñ leen mujj a euh, toj pour mën a accepter mën a accueillir élèves yi war a ñëw ci biir lycée bi parce que presque fukki euh, CM wër nañu at mu nekk seconde rek danañ fa orienté lu toll huit cent élèves yoo xam ne yooyu dugg kooku war na am un plan de euh, euh, d'action boo xam ne dans l'avenir nu ñu mënee te nee dafa ndar kàpp képp ci benn quartier boo xam ne suuf amatu fi fii nee naa la population mi ngi ci cent vingt trois mille âmes muy euh, ñaar téeméer téeméer yu junne ak ñaar fukk ak euh, juróom-benn téeméer yi nit mën naa ni mooy ñaari yoon population euh, fële Kébémer dëkk bu mel ne Kébémer bi nga xam mi ngi ci quatre-vingt mille moins de quatre-vingt mille am donc tey jii prévision war na ak planification war na tax lycée bi état bi jàppale nu suuf yi ko wër mu jox ko école bi suuf yi nekk ci wetam yoo xam ne leneen la fi yeneen activités yoo xam c'est pas compatible ñu ñu arrêté ko